Internautes sans limite sn.com, bienvenue dans votre émission 15 minutes sans limite comme on a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, je suis avec des stars, j'ose même le dire, ñoom ñi nga xam ni depuis un très bout de temps ñi ngi marqué seen empreinte ci scène musicale africaine, mondiale, j'ose même dire. Su ma ko waxee mooy le couple magique, le couple exceptionnel, le couple original. Ñu gën leen xamee ci ñoom Face et Mia, mais d'une manière générale, couple Mabo. Tey ñoom laa euh, invité tey, ñoom laa war a waxtaanal ci beaucoup de choses. Mais avant loolu damay xool euh, ci ñoom ñaar kan laay jëkk a jox mu ne honneur aux dames bien honneur euh, au mari pourquoi pas kan la kan kan laa ciy jox mu njëkk a nuyu. def nga ko ba pare waaw. à vous l'honneur ñu bàyyi la nga nuyu ak internet sans limite maa ngi lay nuyu di rafetlu invitation bi nuyu internet yu ñuy seetaan ñëpp. merci léegi nag à ah, à toi l'honneur. Euh, di rafetlu rek di nuyu kilifa yi fi nekk. Euh, di jéggalu ñëpp aussi di remercier ñëpp. alors euh, vous savez très bien ñoom à chaque fois bu ñu leen di gis dañuy am benn complicité dañuy waxtaan way bi boo gisee toujours day am benn amour même bu fekkee titre bi ça parle pas de mais à travers euh, chanson bi nga xam ne ñoom la def da ngay gis amour bi donc ñoom dañuy débuter pourquoi euh, toujours ensemble c'est normal même seen couple mi yaay yow laay yow laay njëkk fan la démarré naka ngeen def ba gisante étant jeune la wala ci liggéey bi la wala nu mu demee noonu exactement. waaw si liggéey la ñu xamante. Mhm. liggéey la ñu xamante euh, ci loxo ki nga xamante ne suñu benn tonton la bu ñu wax gisee. Mhm. ñu koy nuyu de passage. Mhm. léegi moo ñu boole woon pour ñu liggéey. Mhm. waaw ñu liggéey yàlla def nag euh, dogal ma doon soxnaam. mu doon sama boroom kër. waa si liggéey bi la nga xamante si liggéey bi la yàlla def li muy def yëpp. mais bonne chance de toute façon yàlla yàlla jubóole leen ay jusqu'à l'infini alors d'accord mais dañu gis tout le temps les gens se disent NFU mais tout le temps gars yi les gens se posent la question à savoir lu waral loolu yow nag il est temps que nga apporter des éclaircissements là-dessus. Euh, lu tax NFU bi euh, je pense que dafa am lu ma commencé woon mooy no fay sant ko li ma si commencé bëgguma woon sérieusement ñu xam maay kan parce que boobu noonu li ma soxla woon du du du célébrité bi du visibilité bi li ma soxla woon mooy. am benn tour boo xamante ne fu ma defee dara dinañ xam ne kat ah diw moo tax diw moo ko defar te loolu pour nga am ko il faut nga am benn tour bu différent ak ñeneen ñi fi nekkoon loolu rek moo tax ma tuddee woon sama bopp No Face Undercover di nëbb sama kanam euh, moo fi des ba léegi aussi bàyyi fi lunette yi ah, envie rek boo xamante ne bëgguma perte li nga xamante ne commencé woon naa ko mais su ma demee ba mu jot nag bisa ngi ñëw ci kanam li gars di laajte ma dindi gille yi teg ko ne waaw xool daal mais ça serait vraiment intéressant parce que gars dañ naan benn maître Gims lañ fa gis rek tout le temps verre yi mi ngi koy sol bon mais comme li nga ko waxee rek da nga bëggoon nekk euh, ci ombre bi mais nag mais Mia est-ce que yaa na ko il est temps nga génn. mais non man je d'accord ak ni mu mel nii waaw. mais waxoo ko il est temps nga génn nag wan gars ni li nga laaxatu doy na. non heure bu ko sentiree rek na ko def incha allah. mais bi ngay ñëw ci ci ci euh, bërëbu liggéeyukaayam vous étiez là-bas pour chanter ou bien da nga am beneen domaine bu la fa yóbboon parce que j'ai eu l'écho ci fort ci bébé ñu ne da nga doon def étude ci ak wàllum infographie si je me je me trompe pas loolu moo la fa indi woon way moo la fa indi wooy moo la fi indi woon mais le choix doon def métier infographe ba pare changé ne da ngay dem wooy euh, doon def mm-hmm. euh, dama nekk si étudiante mm-hmm. euh, licence licence professionnelle droit mm-hmm. Cheikh Anta Diop après doon ko booleeg infographie boole doon ko booleeg musique waaw ah, léegi man nag musique moom moo ma yóbbu woon si si moom pour ma liggéey waaw ah, jotewul ak dara sama jàng dara jàng bi d'accord bit moo la moom moom nga doon liggéey moom wala danga nga xool xam ne kii am na temps il est temps nga produire ko mais ñu jékki-jékki gis nga inséré ak moom couple bi moo la obligé nga way wala da gis ne instant am na talent bu doon nëbbuti ci yow tamit faaw nga way ànd ak moom. Euh, comme ni mu la ko waxee début bi sama benn tonton bu nekk BSD Amérique suñu tonton sax lay wax moom ma woo ne ma dama la bëgg a dénk sama jarbaat yi ñëw nga liggéey ak ñoom yàlla def ñu xamante ci liggéey. mais ci kër xumaan nekk grand boo xamante ne dama koy nuyu de passage euh, mu waroon ñëw ñoom ñu waroon ñëw moom ak benn cousin mu waroon ñëw participer ci projet journal rappel pour ñu xool leen war liggéey ak ñoom ñu fa ñëwee liggéey def benn defaat beneen waaw bi mu ñëwee te troisième fois bi après man ci laa def benn waaw xaw ko def affaire jog ba wër laajte numéro bi def waaye infiltre système bi euh, rek jëli ji ko Tamba rek waaye indi ko Dakar. naka la demee xawoon na siisu ko ni jigéen ñi di def di tiitaroo xeet yooyu. non gis nga gis nga Cristiano walla Messi bu ñu bëggee dugal noo def match boobu dinañ gañe <laughs> football la rek. football ma daal flip flap naa centré naa waaye daal dem naa ba kër gi fa mu dëkk ci pooju ndeyam fa ko yaayam teg ma jëli ko fa indi sama kër waaw waaw officiellement. pourquoi choix yow nga waay instant ba pourquoi parce que ku doon làq du jékki-jékki damay feeñ donc am na source. Euh, bi may xamante moom boobu fekk na defar naa commencé naa sama album déjà pare euh, waaye xam nga yàlla li mu tudd kenn mënu si dara te su ma waree liggéey aussi am jabar boo xam ñoo bokk liggéey ma ne damay dem def sama carrière bàyyi ko moom muy def carrière ñaari problème lay nekk pour man du am doole li ëpp doole mooy ñun ñaar ñëpp ñu bokk li ñuy def alors pourquoi pas ñu def ko loolu la te yaakaar naa ni nag booy liggéey nit am associé bu ëpp sa jabar du ma ne mënul nekk de waaye loolu doole la ndax mennum poste bi la su ma liggéey mu liggéey dépense bi fa lay liggéey su ma su ma tourné sama xel dal xam naa ni duma dóor xaalis bi su tourné sama xelam dal xam na ni du ma dóor xaalis bi ñu ñaar ñëpp a bokk benn liggéey bi ñuy def waaw ci cin bi la rek ci cin bi waaw. waaw non. mais ci yow laay ñëw dañu gis euh, tout le temps seeni seeni titre buy génn même bu fekkee am na titre boo xam ne c'est vraiment original mais damay gis ay round mais ku nekk ci king ci ci ringu box round 7 round 8 pourquoi les noms de round. Euh, round yi muy commencé euh, yàgg na dañ doon toog nii. Mhm. kër ga teg suñu caméra. Mhm. di concours mag moom way ku dàq way publier mhm. jox internautes yi ñu jugé. ñu def ko round round 3 round 4 je pense si lañ mhm. euh, gën maan xumaan waxee nañ ko professionnel nañ nañ ko professionnaliser mhm. def ko mu mu gën a professionnel mhm. après si lañ tegee benn euh, caméra bu baax. Mhm. commencé def ay vidéo de qualité. Mhm. noonu la commencé. Mhm. ñuy continuer rawoon ni continuer rawoon ni rawoon neuf bi nag. moom mooy euh, annoncé euh, moo nekk premier single album bi ñëw. d' accord mais ban round moo ne parce que liñ naan baby boum na round boo xam ne au début vous jouez mais moment bi nga xam ne am na round boo leen doon def tout en joignant l'utile à l'agréable ban moo def boum ci Noves. pour man bi def mooy premier round parce que ni ñu ko doon defee puissance bi mu amoon moo tax ñu toll fii tey ndax première bi ñu defoon su dañoo teg téléphone bi nii ma koy firi je pense loolu après ñu commencé woy ah mal dàq woy imiter Yandé Codou kii ne defal lii mu woy ñu dugal affaire bi def boum nit ñi di ko waxtaanee kaa leen seetaan NFU ak Mia gars yi def commentaire noo maa ngi ci Mia non tey kii moo gagné non c'est xamoo leen kii na penales qu'est-ce qui se gasse ku munul bawo lu yàq yow waaw man yéen xam ngeen combat bi day métti waaye yéen xam ngeen mais bon. doo comprendre fi ñuy farde dañuy jékki-jékki rek na noonu ñun ci miyaa surtout jigéen ñi. jigéen ñi dañoo sañ wax ci man lañ nekk hmm. dañ ko raccourci la dañ naan miyaa miyaa miyaa mais boo leen xoolee dëggantaan dañu ñemewul waxuñ ñemewuñ ñëw te nëfis moo tax ñu jaar si miyaa bu jaaree si miyaa ñoom ñëpp kii man la fa. ma la ñoom ñëpp buñ koy wër moom yow lay wër. gisoo ñoom ñëpp bu ñu koy wër moom man lay wër. ñu ñëw nag ci titre bi nga xam ni école boo dem man j'ai l'habitude j'ai présenté plusieurs fois que yoo xam ne vous étiez présent euh, je je peux citer Mboba publicité lay doon mais école boo dem tout le temps gars yi yéen lañ soxla gisee maaba gise maaba gisee maaba gisee maaba ah xoolaat ma kaw ba suuf dafa mel ni concurrence dafa ñëw ci seen xeeti sañse alors titre boobu qu'est-ce que ça vous exactement bi ngeen ko génnee te boobu mooy ban round sax exactement boobu mooy round 6. boobu mooy round. non non round 7 ba mooy round 7 anniversaire mooy 8 waaw. maa ngi leen di suivre <laughs> non saa yëpp suivre naa la de. combat yi la xam nga xam nga booy combat ñuy arbitre bi sifflé ci box bi ci ring bi des fois coup yi am na nu mu ñëwee il faut des fois nga xaw a kii quoi. mi yaa moom fàttewul. non man équilibre bi rek la <laughs> équilibre bi rek dafa maa dóor ci bët quoi ma xaw a fàtte tuuti. biir mu nekk lu original naka ngeen dundee loolu ak fan la fan la fan la idée bi jugee exactement. bon round six bi idée bi mu ngi jugee si gën man xuman moom moo taxaw xool ni dama bëgg ngeen def benn son son bi nii la mën a demee li ak lii jaayante kan moo dàq solo ak lii ma ne ko waaw da mu ne ma bon xaaral naa ci xool ak Tidiane ñu xool si ñoom ñaar Kroma ñu Mori ñu ñu ne ma yónnee leen ma mélodie ma bind ma def mélodie defar son bi yónnee leen ñu ne non ñu changé waat changé waat ma def mélodie yi defar kii ñu def mélodie yeeg yooyu noonu bit bi yónnee leen ko ñoom ñu bind proposé ñu après ñu xool ñu jël ko ak suñu façon ñu posé ko léegi nag bi ñu ko defee ak pour man yàlla li ko li mu def leen nii rek xam nga mu jotoon yàlla ne voilà ci lii la ñu di déggee voilà après mu jàll Sénégalais yi accueillir ko mu neex leen yàlla taal foofu carrière bi mu avancé daal. waaw moo la gën a marqué ci clip boobu ngeen doon tourné parce que clip bi ñun man je dis vrai bu ñu bu ma doon votel man moom laay àndal parce que il a porté euh, ensemble costume yu graw yoo xam ne j'ai beaucoup aimé yow lan moo la gën a remarqué marqué ci clip boobu ngeen doon tourné <laughs> waaw euh, Namel euh, ñi ngi ko def pour rendre hommage ñi nga xamante ne seeni borom kër nekkuñu fi wala seeni soxna nekkuñu fi parce que par exemple moom mën naa génn dem fu ndaw mën na ma ko wéet mhm. koo xamante ne jëkkëram dafa dem mission. des fois yeewu di ko xool ñu ne ma dem na marché mais dafay dafay métti de dafay difficile. d'accord fa fa la bi jógee après ñu toogaat gis euh, anniversaire happy birthday happy birthday ñëpp apprécié itam mais mémoire bii nag bii def buzz mooy round neuf round neuf gars yi ngeen pourquoi ngeen toogoon lu yàgg loolu gaa yi gisuñu leen no no fees yow laay laaj loolu. xam nga carrière du course. lépp looy def da jël sa temps xam ni dafa am ñoo koy jox il faut nga respecter leen ñooñu aussi nga koy jox il faut ñu xam aussi ñoom it lan lañ leen di jox moo tax liggéey bi jël temps tuuti ñu xool li ñuy def te euh, round neuf bi ñu ngi wax round neuf bi ba kañ mais round neuf bi moo nekk round bi annoncé album bi lépp li jot a génn round un ba huit bokkul ci album bi. neuf bi moo annoncé album bi dix bi mooy final bi final bi nag concert live la. waaw xanaa ring ngeen ring ring ngeen taxaw pourquoi pas. amul benn problème xaaral ba dix ba rek ñëw dix ba moom na ko ñëpp waajal. ak al album maintenant. album bi dina album bi dina ñëw fii ak euh, quelques mun naa ne quelques semaines quelques semaines incha allah. maanaam titre bi. Euh, maanaam je préfère jox la nga utiliser titre bi ñu génnee nii. ndax dina la bett waaw ni nga ko denc noonu rek mu bett la waaye titre bi génn bu pare sax mooy jolof bit maanaam li ma bëgg wax si loolu mooy dina la bett quoi waaw album bi nag mooy jolof bit te mi ngi ñëw euh, ça va me permettre ma def benn transition ñëw ci jolof bit c'est presque ñaari nom olof ak anglais pourquoi déjà nga ne jolof bit après ñu nga détail ni foofu euh, dafa am fu mu commencé dama yàggoon di liggéey en tant que beatmaker euh, bon commande ma booy il faut nga trouver benn affaire il faut nga jéem a def loo xamante ne dafa différent ak yeneen gars yi créel dara ma ne si di gëstu di gëstu di gëstu gëstu gëstu ba am dara ñëw ne ko bon lii laa am euh, je sais pas est que yaa ngi fàttaliku son Balla Gaye ak Tapha bi nga si tax rip ma ne ay donc boobu noonu foofu la commencé essayé affaire boobu jàll kon mu ne ok yoon bi mu ngi feeñ ndànk-ndànk am na ñeneen ñu ko doon def ah, mais tour rek la ñuy amagul woon quoi après ma commencé di xool di xool di def ay recherche di avancé xool naka laa mën a jëlee affaire yi ci mbalax bi di ko fusionné ak lële ba am dara bi ñu ko trouvé mu tuddee ko wolof beats euh, xamoon na mu defal jolof man ko non wolof baax na teg samay argument toog bi ma avancé ba ci kanam euh, am na yeneen kilifa tamit yu wax ñu ne bon boo leen ko defee jolof moo gën a baax ci côté international ndax wolof bit man argument yi ma tegoon mooy euh, déjà boo xoolee Google boo ne français anglais Google léegi mën nga ko am à 100 pour cent ci wolof ci internet bi école olof yi ñu ngi commencé di bëri fépp foo dem ci àdduna bi boo demee Guinée Mauritanie Gambie feneen foofu dem fii nii sous région yi ñu ngi commencé di làkk olof olof kon mi ngi màgg kon pour ñu tuddee ko olof dina nekk loo xamante ne day yokk doole dëkk bi mais ci beneen côté muy Wolof of Beats Wolof Beats boobu noonu soo déggee Wolof Beats dafay am mix reggae kii bi salsa day dem ak moom hip hop day dem ak moom jazz day dem ak moom loolu moo tax world of beats bi léegi bi nga ko xoolee noonu bañ ne ok loolu la bu ñu waxtaanee ak kilifa yi dañ ne boo leen defee ji jolof beats moo gën ndax nit ñi demoon nañ yeneen dëkk yi ba commencé naan ñoom moom ceebu jën ñu tuddee ko jolof rice ba concours am ci alors loolu noonu wane na aussi tamit à l'international loolu ëpp na ko doole ba pare alors bu ko defee jolof aussi Sénégal ngay ñëw fekk fi dëkk bu tudd Daara jolof ma jud ma du dëkk foofu sama baaba juddoo foofu ma dëkk Daara jolof comprendre nga daf ci tombé rek mais du nekk choix boo xamante ne man la. y a plusieurs connotations ci ci ci ci ci affaire bi ko jolof bit daal boo ko déggee daal juste benn fusion la boo xamante ne li ne ci mbalax lañ jël tuuti ay affaire boole kook li ñëpp di consommer pour ñu mun ko proposer ñeneen ñi ñu xam ni nag ñun moomuñ ko quoi. moom moomuñ ko appellation rek la ñuy wut pour jéem a xool ñëpp mais nit ñi ñu ngi koy def ah ñu ngi koy def mais ñun ñëpp buñ boolooy defandoo ko tuddee ko benn tur ñun kese ñooy gañe quoi Sénégal mooy jëm ci kanam Afrique quoi voilà. alors dafa am euh, loo xam ne nag je pense bien que il est temps que sénégalais yëpp dal di ci bàyyi xel muy prix découverte fii euh, bu ñu choisir Sénégal ak kuñ ñu mënti jël déjà dañu war a mën a appuyer mais plus forte raison mu doon ñi nga xam ni. je pense je n'ose pas dire bi ñu ñëwee yàggul même bu yàggee bu yàgg marqué ngeen seen empreinte d'une manière exceptionnelle donc prix découverte RFI Mia naka ngeen def ba gars yi def choix ci yéen déjà. waaw euh, bon euh, gars yi dañ euh, en ce moment ñoo nekk euh, dix finalistes yu prix RFI. Mm-hmm. li tax ñu choisir ñu nag. Mm-hmm. Euh, peut-être dafa am lu ñu gis ci ñun. Mm-hmm. peut-être euh, aussi sénégalais yi nu ñu téyewee ak nu ñu jàppee. Mm-hmm. moo taxit ñu choisir ñu. Mm-hmm. waaw moo tax tamit ñuy wax képp kuy sénégalais. képp ki nga xamante ne bëgg na réewam bëgg na Afrique. bëgg na Maaba surtout. bu mu hésiter pour voter. parce que c'est le Sénégal qui gagne. waaw. comment faire pour voter exactement nag. Euh, pour nga voter euh, déjà am na benn affaire bu yomb bu ñu def euh, mooy da ngay dem YouTube nga bind Maabo. dernière vidéo bi ñu génnee euh, daf mu bett nga cliquer si vidéo boo cliquer ci vidéo nga wàcc tuuti premier lien bi ngay njëkk a gis ci description fi mu bind Mabou officiel ci suuf tuuti nga cliquer ci lien bi mu dugal la ci site bi nga xamante ne fa ngay voter directement di nga fa gis Mabou nga cliquer voter nga wàcc si euh, non nga def fa sa sant non nga def fa sa tur courriel bi nga def sa email léegi nag boo paree nga xool ci suuf nga accepter def je ne suis mu def la test nga valider ko après nga def voté waaw mais Sénégal ñaari artistes lañ fi jël. mu muy euh, OMG ak ak ak Mabo. alors ku ci dem nag Sénégal nga ko indil maa ngi koy euh, ñaanal pour ko yàlla dimbali ko aussi moom bu ko jëlee ak ñun bu ko jëlee benn la na ko sénégalais yëpp jàppale na sénégalais yëpp jàppale ñaari artistes yi dem voilà. nit mënta voté ñaari yoon. ah man de mun naa ne mun <laughs> est-ce que boo xoolee est-ce que voté luñ ko sax moom waaw. ñu ne ñu koy ba crime la boo parrainé parrainé ma munoo parrainé OMG. alors damay ñëw ci question boo xam ne mën naa ne divers la mais mën naa ni un un peu tout petit peu d'humour Mabo xool euh, vidéo yi ngeen di euh, Mia autant vidéo yi ngeen di def ci YouTube yaa ngi xool commentaire yi. Euh, non. dinaa defal benn remarque la majeure partie des commentaires gars yi dañ naan am na waaju bind dañu ne 3 vingt cinq secondes. xoolal Mia ni muy xoolee jëkkër ji c'est chou là la majeure partie gars yi regard yi la ñuy wax ma ñëw mooy ci système complicité bi est-ce que <laughs> gis nga saa mi ngi mi ngi may dóor ci suuf alors <laughs> non gis nga loolu ni mu demee pourquoi pourquoi kii bi noonu wala bële <laughs> non du dóor la majeure partie gars yi la ñuy wax ah yaa ngi koy suivre. waaw en fait yaa ma koy soog a wax. Ah. et tout donc euh, dafa nekk loo xamante ne dafa naturel. waaw lu ma forcé. côté style habillement toujours vous aimez carrément vous valoriser la culture africaine euh, pourquoi ce choix Mia waaw euh, exactement valoriser la culture africaine mm -hmm. Euh, la culture sénégalaise mhm. comprendre nga et euh, mhm. mën nañu sol yére mhm. mu rafet yiw te suñu dëkk bi la jógee mais mais sol bi nan la yow yaa koy choisir jël tissu bi ñëw benn yoon wala moom moon nañuy nuroo wala nu mu demee noonu novice allez pour récemment vidéo bi ñu génnee nii ki ñu wax Fatima Zata Fashion liggéey na si Coumba gisee liggéey na si moom tenue si des moo leen defar waaw xalaat def ay design am toog ñëw dafa garaaw na <laughs> garaaw. am na ñu doon réclamer sax ne pourquoi defalagu la caaya ak jamput. non yooyu mi ngi ñëw xam lépp moo la carrière la xam nga te caaya dafa bokk ci patrimoine dëkk bi xam nga. caaya boo koy indi dafa war a ñëw am ni mu ñëwee xam nga man maa ngi gis sax fii ak ëllëg bàyyi ko xel nga defal ma caaya su gàtt xam nga weex tàll xam nga xaw a yëmm nag ma sol ay dàll mu bàyyil ma distance entre yeel yi ak dàll yi comme su ko defee ma mën a dellu dëkk ba defal ma caaya defal ma yére jamput yooyu noonu xaw a am design nag bu moderne mais na ma defal genn ca gannaaw su ko defee su ma wëlbatikoo caaya bi nga dem def geen gars yi jàpp ci ginnaaw nga dem spectacle xale yi téye ci ginnaaw nu mu demee noonu jege sil micro day détaché xam nga mooy mooy yooyu noonu ñuy tapp tamit affaire nu mu tudd da nga xam boo ko defee ni col boobu noonu nga xam day def crèche boo xëccee mu dañaat yooyu nga may defal ci genn nga xam ku ci téye rek bëgguma kii rek boo xëccee day détaché wu la koy bàyyee voilà euh, bu album bi génnee est-ce que dina accompagner ak événement dem ci 1800 places yi wala 1500 places war waaw round 10 bi wala def ko spectacle bu exceptionnel ka à quand loolu ñu mën ñu mën a terme mi ngi ñëw album bu génnee euh, concert yi dañ dem dëkk yi nga xamante ni yëpp fa lañ bëgg a dem pour waajal diis bi diis moom bu pare ñoo leen koy présenté ak jàmm ak ñoom saal ba ñu bënn nit ñu dem foofu noonu feesal ko te visé nag ci kaw léegi ñu bàyyi euh, Mia déjà mu tàggatoo internet sans limite sn.com et di la remercier bu baax a baax a baax ci disponibilité bi jot amul parce que moment bi ñëpp a ñëpp ñëpp a leen soxla donc maa lay euh, remercier di la wax merci encore maa ci yow njëkk nga tàggoo ba pare parce que yow yaa ubbi baal bi. d'accord euh, maa ngi lay remercier yow it si invitation bi di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñoo jàpp si carrière Mabo di remercier spécialement. fi ma jóge waa Tambacounda mhm. ñi nga xamante ne awma seen fay vraiment euh, di remercier waa Dara Jolof di remercier ñi nga xamante ne mhm. ñoom la ñuy liggéeyal si mhm. wàllu stylisme bi ku ci mel ni Zata ku ci mel ni Kumba Gise ah ku ci mel ni suñu frère frère yi nga xamante ne ñoo jàpp si liggéey yi ku ci mel ni daaw Daouda Gise ak Papa Jabriel Gise ñu ngi remercier ñëpp ñëpp macha allah maa ngi koy bàyyi mu yeggali remerciement bi. gannaaw ma sant yàlla jul ci yeneen bi sant sama ñaari waajur combat bi dañ ko yàgg pare. Euh, ñi si jàpp nag ñu mel ni Keyti euh, di remercier waale waa Daara Jolof comme ni mu ko waxee ak sunu ñaari manager yi lakkale yi meeru ak ay satu wilaan xam nga di remercier waa Silem Grand Médine waa fépp daal su ma limee rek damay jum quoi jàpp nañu si combat bu baax a baax a baax waaw. combat bu mag bi mooy round 10 bi. waaw round 10 moom comme ni ma leen ko waxee rek nañ ñëw nañ ñëw nañ ñëw te round 10 bi aussi bokk na ci ñu gars yi dem voté ji nañ voté ji pour Maabo. Euh, pour OMG nañ jàppale artistes yi nga xam ne ñoo participé foofu noonu yëpp voilà nañ seetaan vidéo yi nañ partagé comme nag ñu ngi ñëw roundis waajal leen ko combat bi moom non du yomb du yomb. roundis ñi ngi koy waaj bu baax a baax a baax muy combat entre euh, No Face ak Mia léegi yéen nag ci commentaire yi ngeen bëgg wax ma koo leen di àndal ci ñoom ñaar roundis bi ku nekk ngay faral. bind ko ci suuf merci beaucoup à tout le monde c'était euh, votre émission 15 minutes sans limite ànd ak di remercier ñëpp di leen jox rendez-vous très prochainement avec yeneen artistes mais pour l'instant contentez-vous ci li nga xam ne moo di euh, Mabo jaa ngeen jëf ciao. yaa ma xam ni mbëggeel neexee ma nit dina ma tollu fii li def ñu bett maak yow eh. <laughs> si mbégte nga may delloo merci